comme ni leen koy toppalee lépp loo xam te ni moom moo di actualité mbokk yi te jëm ci làmb rek mbokk yi dañ leen ko toppal waaye rawatina koo xam te ni man ak moom sunu jataay dafay neex man ak moom sunu jataay Sénégal yu baree bari dañ koy yàkkamti waaye rawatina mbokki internet yi nga xam ne yéenay bàyyi xel seen bi di Fekke TV sama jataay ak moom da koy yàkkamti bu ñu ko waxee saa mbir amee wala actualité am man ak moom dinañu jukki daal di dugg ci li nga xam ne moom moo day information yu am ci réew mi waaye rawatina nag tey ci li nga xam ne ci la ñu war a waxtaane muy lu bare bare bare bare bu ma ko waxee muy 5 tonnes dof bi borom sama góor gi 5 maa ngi lay nuyu slogan boobu laal tuddee sama góor gi <laughs> ah, noonu la maa lay fay magan di wax ginnaaw bi sant yàlla jël si yonent ñaari waajur di wax 5 tonnes benn ndaw la bu jub 1987 sixième mois troisième jour hôpital Ndamatou 23 730 si faire présenté woo loolu béggee àdduna béggee géej waaye di béggee képp moom fi ma jaareen dafa métti yow su ma waaye nga dañuy fanaan dañuy def lu ne moo tax sañoo fekk sama kër yee ma ne ma jógal ñu dem def interview loolu dama si am mbégte dama si am fierté mm-hmm. dama si am contenté bu baax a baax mm-hmm. di jaajëfal fi ma fekk mooy géy pour business ndax man ak ñoom dañuy liggéey waaw borom téléphone baax damay liggéey ak ñoom mm-hmm. damay liggéey ak ñoom xama mu ngi nekk en géej waa isaan isaan njaareem en face isaan njaareem xama wàllu électronique téléphone boo ma bëgg iPhone 16 bi mujj a génn xama am na ci ay qualité yu yoo xamante ni beneen mu ngi nekk seen Aline Sow beneen bi soo war a gis numéro bi 77 627 25 39. mooy numéro Binta Gueye pour business Ndiaye nekk Issa Ndiaye yëpp xam nga. waaw Mor Ndiaye boo ñëwee ba waaw <laughs> xam a dóor. <laughs> waaw moom mu yëfi mbir café gu tàng jër la lay laal gaan ak beñe mooy loolu beñe dugub. <laughs> moom vraiment mu ngi jàppale Sonko ci liggéey bi moom jàmbaar la quoi moom Ndiaye xam nga morom baax la quoi. Mhm. te jeune la boo xamante ni ku am la quoi. Mhm. Mhm. jërëjëf 5 ñuy dugg ci li nga xam ne moom moo di actualité barki Dembo Ndiaye muy ki nga xam ne moom moo di mootuloo nga xam ne peut-être moom mooy roi des arènes ñu dalaloon ko fële ca desis fële ca Lutte TV ñu nommé ko daal di koy def ne ko moom mooy meilleur lutteur révélation bi nag après bari lool am ñu génn ne waruñu ko ko fal ñii lañ ko war a fal coow li bari en tant que sportif nekk ci làmb ñu far Modou Lo meilleur lutteur d'accord nga wala d'accord. waaw mais c'est normal ci ci ñoom si grand frère li mu def benn mbër defu ko Modou Lo exemple leer la. Mhm. muloo combat day ñëw indi état indi fula indi jom mm-hmm. jàpp Ama Baldé daan ko te Ama Baldé dafa gëjoon daanu mu ñëw jàpp Boy Niang daan ko ama manière mm-hmm. ñëw jël Siteu may ko sens mm-hmm. comprendre loolu c'est normal ñu fal ko ko bu ñu ko ko falee li mu def kenn defu ko si ñoom grand frère ama seen defu ko jogoy defu ko Lac de Guiers defu ko guy gi defu ko moom moo ko def dañ ko ko war a defal seen normal kon ñuy wax nag ne waruñu ko fal kan moo wax loolu Modou Mbaye non loolu bu ko moom bu moom bu li ñu organise ñu organise ko de TV mu fekke instant Ligue TV dafa dafa am site yoo xam ne yàlla suñu borom moo leen defaloo lu mënuñ si dara télé léegi télé poste moo am xam nga léegi bu njëkk da nga naa toog ay bantamba ngay am jot di ko seetaan man ba ma gëjee seetaan bantamba li ëpp na ëpp na un an wallaay lancim ndax jot googu di ah yow télé amatoo jot xam nga tey nañu ñu def seen normal ñu def ko waa léegi moom est-ce que bañ waxee Balla affaire euh, ample moom wax na ci waxu léegi ñu wax mu loo mu wax pour la lan mooy problème Sénégal la ma damay làmb dafa am lobby lobby nag ku ci bokk da ngay mos mënoo ko nga noppi loolu moo xew ci Sénégal ci lobby la bokk waaye xam ah, nga mais Modou Mbaye mi ngi liggéey liggéey bu liggéey maa ngi dégg muy wax yow moom muy wax naan xaw ma maa jël sama téléphone woo nangam moom laa moom dama jëloon numéro bi sama ma koy woo jëlu yow ba ma mujj supprimer numéro kon moom la loolu c'est la woon ñëpp Baye Fall yàlla na ko lu wax di ko kalas moom téléphone moo def lépp dama ne la Ligue TV li ñu def loolu c'est normal ñu def ko ku ci ku ci ku ci kii rek ku ci wax lu dara da ngaa siisu ndax loolu buy sañoon mooy mel ni. mooy far na nañ si ko Balde wala Kirikou. waaw loolu day wax rek dama moom bu sañoon laax la ñu organiser fay Ligue TV ñu organiser ko plateau wax moom fa la koy fekk ah bañu waaye. kon siisu daf ci am. waaw mais oui jalousie la kay bu mag sax mu loo mooy mel leader mu neex mu naqar moom la mënuñ koo bañ fekk yow sa diggante Modou Lo non dara Modou Lo déggante wuñ téléphone dara moom loo xam ne dama ciy déggante ak moom. kon li nga dem Modou Mbaye <laughs> cinq mille ah. ah li ma la da nga ko ah, ah, mu wax loolu rek naan xaw ma diw woo ko damay woo ay nit di leen conseil nangam te man soxla woon naa conseil ba ko daa woo est-ce jël na waaye dañu sonal wala fële gars yi nafaate rek duñ dara <laughs> nga lan yàlla yàlla daf jàmm daa bëgg a bokk si coow rek moo tax mu génne noonu xam na ne gars yi dañu ko a kii fan yi moo tax mu génn pour attaquer pour bokk kon li def nii daf bëgg bokk ah bokk <laughs> ci wax keneen a def année def ba maag CNG ba bàyyi la na fi rek ah, ba maag CNG waay lan la ñu apporté yow nañu wax dëgg Modou Lo instant yi waroon di fay ak ay santaas yu am doole ci biir làmb roi des arènes da nga ko war a valoriser valoriser ba nga xam nit ku ne da ngay jaayante pour bëre ko mais lan mooy problème bi léegi roi des arènes dañ ko war <laughs> <laughs> non rek. waa dèjà dañ ko war a la. ko a favoriser ah, yi moom nga naan doo comprendre quoi mais dama ne la. Mhm. isaan ñu toll daal làmb dafa toll foo xamante ni saa dafa yàqu. Mhm. Mhm. dafa yàqu bu baax a baax a baax a baax. dafa yàqu làmb dafa yàqu. mu neex mu naqari. li mu def jogoy maay defu ko. kenn defu ko mooy maire littéer mu neex leen mu naqari leen. ñoom mbër bu ñu a am tamit mu neex leen mu naqari la ñoom waa 2STV exemple. mu loo mooy maire littéer mu neex ñaari defet soo ma laajee may la Modou Lo grand yi moo ci gën a niil man loolu laa gëm. voilà li nga gëm rek man li ma gëm loolu am sax. waaw léegi li Modou Lo li mu def ban grand moo fa def. am ma seen dafa daan ay ay victoire yoo xaw a kii la teg la ñëw doo ko daan Sa Thiès. Mhm. tàngal jogomaay ñaata defet la teg la kii jogomaay jogoy ñaata defet la teg la. jogoy ña defet yi gën a doy waar la teg la Bombardier dafa jàpp weer ko ñaari yoon ci biir kii ko boo ñaa ñëw ko daan mhm. mhm. a mu Lo kañ la gëj a ah, daanu. dafa ñëw dóor Eumeu Sène mu daanu dafa ñëw dóor Eumeu jël Ama Baldé daan ko ba ko ba ko ba ko Balla ba léegi kay. waaw léegi kooku boo ko farul boo ko fal mitre loolu la ko koy fal. nañu woon dëgg. waaw sa waay man xam bu ñu wax naan ay daw nga dama bañ jogoy man jogoy mu koy bañe ko xam ne man yokku lu ma ko wàññi lu ma ko. mais ñu bari bañ waaw lu ma koy bañe man dama sama dëgg rek fréquenté wu ma ko. non dañ dañ dañ non dañuy gis naa benn photo yaa jogo jogo sol yére olof. non dañuy dama ne man xamal laa gëm Elmo yow kii euh, Makan man li ma wax laay wax soo ma gisee soo ci meree yaa xam soo ci mirul yaa xam nit du ma ci dóor nit du ma ci sax ñàkkewu ma fayda noonu barke alxuraanu karim man man géejuwaay fu moom soxla laay dox mais nag fex naa ba organiser sama bopp ne du ma dem fuñ ma wóor ndax ndax tey boo saa yoo demee fuñ la wóor. ñu bari nee nañ ñu bari nee nañ sa diggante ak jogoy woo ko téléphone ñëwut nee nañ ci nga ko jàppale en non ma loola moom moom la xam yaa ngi dégg man l'essentiel def naa samay ndogu woo naa ko téléphone ñëwul woo guy gi ñëwut dinañ ñëw woo guy gi ñëwut mu ne dinaa ñëw woo laaj de guerre ma def samay ndogu ñëwuñu ma géey def introit may leen mbëri ndaw yi jàmm mbëri mag yëpp nañ xam ne mbëri ndaw intérêt mbëri ndaw liggéentiwuñ la seen bopp lañ fi nekkal te mbër mu ndaw mu si furi kër diw laay dem actionné rey sa bopp ba pare boo tey dama yàlla baal boo deewoon mu ndaw yooyu ku ci deewoon tey ñu war laa yoon yóbbu Touba mbër mu mag mi da xaar Ndakaar ba nga ñëw mu doog a jaare say mbokk bañ suuli la ba nga ñëw ñu doog a jaare gi say mbokk tamit kon wax bu feebar na ko na wax nañu wax dëgg xam ñu ne mbër mu ndaw bokk na ci ñu dem bu ca denc ba gisagoo ko dëj yi nga fi dégg mu am doole yëpp mbër yu mag yi dañ caa dem mbër dëj yi nga xam ne comme te dañ fa bare yëpp ñëppay dem mhm. mais mbër mu ndaw comme mu siiwut comme sama saan cinq tonnes dee dafa dóor ama da koo dóor mhm. mu mhm. a seen mu daanu ñëw daan ama balde daan boy ñaa jogomaay dafa ñëw yëkk Bombardier weer ko mhm. genn takkusaan bu daan ko si ñaari jël ñu fe la ñu fekk mhm. yaa ngi dégg ñëw Boy Niang humilier ko daan ko mhm. mu ñëw doog a jël Tapha Tine daan ko benn victoire la fi am si ñaata ñaata at ñaata la kon waaw kon kon kon kon ëpp na ñaari at sax na ko de premier janvier la ko Boy Niang daanoon. Mhm. mu ñëw bëriwaat premier janvier loolu de un an. Mhm. diggante Boy Niang ak ak loolu ëpp na deux ans amala ah, mhm. waaw loolu. faaw ñu bàyyi ko xel. comprendre na man waxuma ko ngir man xam xam fa laa waxee. man damay wax dëgg même gis nga maa xam ñoom ñooñu noonu comme li ma Lac de Guiers di wax rek. man ñoom ñooñu Lac de Guiers man bi nga xuloo man saa ay waxee ci man damay xam li nga wax dëgg la man noonu laa mel. man te man noonu laa mel xoola man mbër mu ndaw ñëw ci mbër mu mag mi naan la diglu Senghou Ton li mu wax ak loolu man ça ne intéresse pas ndax man du ma moromu mbër mu ndaw ñooñu du ma seen morom. Hmm, yow doo mbër mu ndaw kon. non man mbër mu ndaw. loo def sa bopp. man VIP la comme ñëpp nga lan. ponkali nga bokk. non ci laa bokk de nga am lan. loo ko mën joge dama si bëgg jël sama wàll comme ñëpp sax nga lan. joge ban. meen nga lan. da ngaa bëgg a bëreeg boobu. barke sëñ Fallou. Ah, eh, eh, toogal toogal. waaw ah, yàlla na yàlla def jàmm. <laughs> ñu gis tamit démb ñu gisaat tamit ñu falaat ñu ne maire promoteur de l'année ñu jox ko Baye Ndiaye en tant que tamit nga nekkaat ci làmb nan nga ko gisee. waaw loolu moom raisonnable na lu raison loolu raisonnable la ndax xam la raisonnable la mhm. mooy tey alburax li ñu def ci làmb ren kenn defu ko. événement ah. yi ñu indi kenn indi ko fi làmb yi ñu fi indi kenn indiwu ko coow làmb fi ñu dañoo yokk ñoom ren làmb boo xoolee coow li mu am gëj na am coow loolu moom làmb waaw vraiment loolu moom dama ci ànd bu baax. lu raisonnable la bu ñeen ko joxee dañ leen ko war a jox su ñun ko joxul la ñeen ko war a jox loolu raisonnable na lu raisonnable la mhm. loolu ñoom seen seex sax dañ da leen waroon a fay ci loolu ñoom mhm. ndax dañoo dekkal làmb dundalaat làmb mhm. ba pare yokkaat coow làmb boole ko tey gis naa ñuy monté ay combat ay mbëri ndaw yoo xam ne dañuy te xam naa ñu ngi leen fay xaalis quoi te loolu am na ndax boo doon xool ñun man laa man sama combat yi gën a seer boo doon xool ay deux cent mille la tey sant booy ñoom comme booy ñu tëgg da lay war a ñu ngi leen fay benn somme bi loolu baax na ci quoi loolu moom dama ci am mbégte quoi loolu moom naa si moom dañ leen war a décorer mais seetaat nga démb Baye Ndiaye ni mu communiqué ci Sa Thiès ak Balla Gaye expliqué na moom ni mu toppee ci ginnaaw magam ne Sa Thiès noonu la war a toppee ci ginnaaw Balla Gaye en tant que tamit noo ko gisee. waaw ni ko gisee dama ne la. Baye Ndiaye su ci waxee moom amul lu mu wartoon amul lu mu waroon a leeral foofu. Mhm. foofu foofu leeral amu fa woon solo. Mhm. li mu waroon def moom mhm. kilifa da ngay dox ci suuf lépp mu leer mhm. bu fekkee saagees ak kee dañoo am problème moo jogay mhm. dafa war a moom ni moom xam na ne jogay léppam la mu woo saag expliqué ko mu leer ko ci boppam mu jubóole ñu jékki-jékki dégg na bañ amee problème Baye Ndiaye moo leen jubóole loolu mooy rêve bi comprendre na yaa dégg jogay moom it même nu kee mën a mel moom rakam la da ko war a jàppale soutenir ko mhm. tey tey mu ngi ñàkk si nit loo xamante ni exemple war na ko mën a ñàkk si rakam mhm. am déet mhm. na ko jàppalee booy booy booy saa yis borom baax la de day dund lu métti de dama ne la ñi war a wax bu nu waxoon loxo dar gémmiñ yàlla na yàlla def jàmm man jaxasoo ma kenn waaye dama ne la ñi war a wax bu nu waxoon loxo dar gémmiñ mais daal réew mi xam nga réew mi toll man de li may conseil ñëpp ak ku nekk di dund nga nekk góor yàlla li ma lay conseil mooy bu sa kër bàyyi nga nekk wala sa kër mag wala sa kër fexeel ba loo yor na nga dem wut terrain nga tabaxal sa bopp bu coow la amee nga daw toxu foofu la réew mi toll sinon boo ko deful boo nekkee sa kër mag naan nooy eh, sama mag bi xëy bëgg jël appartement amoo loo ko fayee loolu leer daal ah, a jël appartement foofu lu xam non dama lay expliquer non loolu moom dama lay dama ne mm-hmm. Sa Thiès moom mu ngi ci mooy loolu waaye a wax toll réew mi bu kenn bootu ci kenn adduna yàlla ko moom. mais mais Balla Gaye tamit ku yërëm Sa la ku ko soutenir la ku ko jàppale la tamit aussi. waaw loolu moom du ci mën a sori ndax man li ma xam laay wax li ma xam mooy Sa Thiès man xam naa ne dëgg la yooyu ngeen xam waaye xam naa ne Sa Thiès mu ngi ay mu loolu moom leer na ma man naa ñu ne mu ngi ci ay. situation mu ngi ci ay situation loolu. guddi gi mu ngi ci situation daal xam nga wax dafa jafe te man nag du ma wax lu ma maîtriser du ma wax lu mu xamul jaxasewu ma nit looy lu waaye def baax na man moom saa ne intéresse pas waaye li ma la mën a wax mooy saaga nit bu baax la jantal mel ni la booy la yaa ngi dégg mhm. kenn ko ne li ngay def ba ànd ak nit ànd ak mbokki jàmbor soo ci góorgóor rek sa ceem kàttan di nga ànd ak say mbokk loolu ah, waaw waaw la rek nga ne li ngay def ba ànd ak mbokki jàmbor man li ngay def comme exemple teg sama bakkat bay ànd ak mbokki jàmbor mu jaral ma ko su ma ko defee même bu ma xuloog sama mbokk sax man damaa def noonu ba jubóog sama mbokk. mais mais mais kon li Baye Ndiaye wax ne nit da moom dafa topp ci ginnaaw Aziz ba doon li mu doon Aziz da daan maye sax mu gis ko te du yor dërëm mu muñ ak loolu. saa dama ne la fii daal gaan ku fi am ñu waxal lu rafet lu lu ñaaw kenn doo ko mos la. Sa Thiès champion la ak nu mu mën a mel moo Jogay ñoo bokk nday ak Baye. yaa ngi dégg Jogay wurtu moom amul lu muy lu foofu noonu moom nu saay mel xoola na ko na ko gérer rek. nu mel na ko gérer ndax moom tey exemple nit gis nga xam nit nit nit dina mel neen noo xam ne ah yow nga bàyyi ko sax di def yenn sess yoo xam day dem ba day ruus sax moom après bi xam ne wuyu nañ ko jabar ji ko dara gel bi wootewaat mu jël téléphone bi ne ko allo waaw mu ne ko woot naa sànq sax xanaa ki ma jot mu ne ko sama jabar léegi waa ji jabar defar ko mu ndékki waxu ko dara mu xëy añ defu dara mu xëyaat lan demee bi jabar ndékki jabar yi waxu ko dara

suñ borom moo wax loolu. waaw mu ne ñaari nit yu. xuloo ñaari jullit yu xuloo bis bu delsi lu nu ñaan man yàlla duma leen ko may. Mm-hmm. waaw. Mm-hmm. ñu ñëwaat ci actualité xëy nañu ci réseaux sociaux yi vidéo bi ki ma ko njëkk a gis mooy Mbaye Kouthia laa gis mu lancé ci compte TikTok am mu ne diggante Papa booy Djiné ak Ndeye Gueye dañu jote ba Ndeye Gueye ñibbi seen kër kër papaam bi ñu ko déggee tamit ma xëyaat gisaat ci beneen site internet bu ko dugal. muy information boo xam te ni tamit ki ma xam xam naa ne du wax ci erreur muy buur géwél ma déggat ko mu communiqué waat ci diggante Ndeye Gueye ak Papa Boy Djiné loolu di daw ñu ne Ndeye Gueye ak Papa Boy Djiné dañu am problème ba Ndeye Gueye dem seen kër en tant que mbër nga xam Ndeye Gueye xam Papa Boy Djiné loo ciy wax. waaw loolu de bu amee moom dina xay na ma Ndeye Gueye maa ngi numéro mooy sama numéro dañuy déggante hmm. mais loolu bu fekkee lu am la hmm. non. Papa Boy Djiné weere na li tax ma ne weer na mooy ak lu métti métti ak problème lu mën am wóor bàyyi mu sedd même bu ko ndéygee tooñe moom moo war a daw dab jégalu ci sama xalaat ndax tey ndéygee ñu bari mooy li ma doon wax bi ñuy sëy rek nee naa ndéygee ñu bari bëggoon bu ma ko njëkkoon xam Papa Boy Djiné Papa Boy Djiné du si jot jamono ah. wallaay lancé bu ma ko njëkkoon a man ndéygee dafa ma daa dégg dégg xam lu may wax papa sama doom la la may wax man naa papa sama doom la mhm. te kilifa dem naa si kilifa mu ngi nekk boo xay na jurumay tuur turam mais kilifa ko mag la mu ne ma Ndeye Gueye ñëw fii di wax si papa problème papa boo jëlee bay jooy ngir ngir avenir papa boo jëlee wallaay lancé kon yooyu ses yooyu ko koy def mm-hmm. ku ku bëgg nit ki la ku bëgg avancement la mm-hmm. tayit ba mu ànd ko ndax papa boo mm-hmm. ko xamoon rafet waaye dama ah, problème moom mënut a passé ñu ne la bàyyi dee te bàyyam dee kon mënut a passé loolu. Mm-hmm. yaa ngi dégg kon ay mënul passé loolu nag xam nga man daal li ma ko mën a wax la ku ci wax lu ñaaw saytaane nga ndéygee jigéen gu baax la. Mm-hmm. te barke Serigne ma ay ses yoo xamante ni da nga xam ne day ñaw ci day dafa rafetal quoi day rafetal chaque jour. ci lu rafet laa ko xam man man dama part personnel. Mm-hmm. woo na ma wax na ma tey demaan naa ci kilifa mu wax ci Papa Boy Djiné tey boo seetloo communication da xam ne ku bëgg Papa Boy Djiné la ku ko dimbali la tey te dafa am loo xam ne dañ ne war ku ko def ren ba déwén mu jig la dañ ne ko jiñ mais du yow ndax am loolu ndéggee xoolal détail mu dégg ci defeti Papa Boy yi yëpp ah, lu ne la si dégg ndéggee lu mu déggul si Papa Boy Djiné gisay bii nii ñàkkoon ci dugg sax ko gën comprendre na kon daal li ma ko ñaan fekkee daal saa suñu borom dafa dogal ma ngi nañ ci dox yàlla suñu borom jubóole waat leen ñu nekk si jàmm sëy jaamu yàlla la sëy amul sëy bu neex sëy ma wax la ko sëy saa jo posé ko entraînement yam saa yoo toogee entraîné woo ay sa xel dootu nekk ci entraînement mhm. sëy nag métti na métti koo xam ne saa yoo posé sa doo doodoo sëy doodoo sëy da pare sëy bi sëy mook entraînement ñoom laa saa yoo noppaloo rek doodoo sëy <laughs> waaw kon daal li ma koy conseil mooy demal nga jëli sa jabar bëgg naa am jabar ci mel ni barke alxuraan man léegi bu tasoon papa boo jinne tey ma tase moom mu ne ma zerte ma ne ko ma aussi ah, ah waaye ah, papa di nga mel ak moom <laughs> moom mel mel moom nee bu fi indi ay relation ah. boobu forcé relation de <laughs> relation. <laughs> ah yow. bu <laughs> desoon ndey gi nga dagg ndey gi. waaw ah, ba sa xelam ci ndey gi. bàyyi loolu nekku ci sax nekku ci sax mais mooy loolu na ko dee daal xam nga. Mhm. jabar ju baax daal yombul quoi. Mhm. jabar ju baax moom société la. Mhm. tey jàmbaar la te ndey gi mi ni ma ko gisee même bu papa booy jënd taxaatoon jabar tamit da koy gérer. amul problème boobu. yaakaar naa la 24 novembre li ci des bareetul ci diggante Siteu ak Modou Lo coow li bari. Siteu nga Gambie ñee nga ne ma nga jon waar Modou ngi fii di entraîné di wàcc li ci des bareetut ñuy bëri titre roi des arènes Siteu Modou Lo coow li bari. combat bu neex a ngi noonu quoi combat boobu moom xam nga combat bu neex xam nga tey xam naa ne incha allah rek moom ah kii daan moom bu desee quelques jour yow xoolal ma yëngal dëkk bi ma la di wooye daat xam gis naa Mansour rek ak xam nga ay tàmbali di woo di ma wax ak affaire yooyu ndax ñoom man man lu ci bari man lu ci am damay wax kii ndey mbil gi moom mu xam ko ci wax naa ko Mansour père Moussa Fall wallaay ancim Moussa Fall père Moussa Fall père mu wax tàmbale <laughs> nangam saa moom war na ñëw sama gaal man lu ma la wax rek bindal argument la du ma triser àdduna <laughs> yàllaa ko moom nga ne wax nga Mansour kii daan ci diggante Modou ma Sénégal lañ ñëpp lay dégg de waaw ay kilifa laay waxal nga xam la man Moussa Fall géejaa dëkk gërugul wala dëkkul xam naa père Moussa bi ma ko waxee moom moo Mansour Ba

faju na fu ne ci àdduna mënta am doom waaye keroog bi ma booleeg sa góor googu ma boole ko ak moom ndax kooku dañuy gis sama diggante ak yow émission yi ñuy def mu woo ma téléphone soxla numéro góor gi ma woola nga jox ma ko mu jox ko ko nee na soxna si am na doom wax dëgg ci yàlla loolu geste bu rafet la te ñu ngi ciy tamit góor gi bu baax a baax a baax a xam-xam yombul waaw loolu moom sa waay yooyu moom ay ay nitu yàlla la jàmbaar la ko man li muy def la rek mooy laajut. waaw laajut waaw vraiment taxama affaire yu të am doom yooyu nga wax aay na si nit ku dugg kaso aay na si te bu seet lu la ci wax bindal téere ba Siteu Papa bi wax na ma kii daan barke alxuraanu karim comprendre Modou Lo Siteu bi Modou Lo wax na ma kii daan quoi góor gi daal sawaay par bu din mën a am si at man daal dee gis fajugu ko man man dama part personnel ndax ku ma ah, ah, xamul démb ah xam fi ma nekk nii xam ne daal man dee laa lu foofu na ma waaw sama 635 10 78 mooy numéro 5 tonnes dof bi. 76 635 10 78 mooy numéro 5 tonnes dof bi. comprendre ma la mais daal Maguette yow suma waay nga. suma xarit nga. comprendre mais dama ne la. père Moussa Fall moom Mansour xam nañ li xew. Mansour Ba xam na li xew barke alxuraanu karim. père Moussa Fall moom ñu ngi waxtaan maa ngi moom mais dama ci damay yëngal damay. te Serigne Touba te su ma la yow yàlla yàlla defal jàmm ngay action ne kii. jërëjëf mbokk yi jërëjëf mbokk yi yaakaar naa ne 5 tonnes lañu ñu dalaloon waxtaan ak moom nag ci li nga xam ne moom moo ci actualité ci réew mi. waaye mbokk yi damay nuyu sama benn xarit muy sëriñ Samba Ndour ca Touba maa ngi koy nuyu bu baax a baax ku baax di nuyu tamit Laay lawbee naa fa yem mu dagg la moom it mu daq wat ci àddina ah. waaw Laay Lawbe maa ngi ci moom léegi waaw di nuyu ñëpp di nuyu tamit Serigne Moustapha Serigne Serigne Abdoulahat Lo boroom tux fatu nekk fële ca tu fekk fële ca mbuur foofu it dinañ fa ànd man ak yow muy nit ku baax di borom borom xam-xam xasida gi mu tuddee boppa moom tufatu moom saay mhm. kooku li ci sëriñ li ci borom wax rek jar na saay mooy loolu jar na si aara jóg waa kookoy kookoy kookoy sëriñ Abdou Lahat Lo ndeysaan borom tux fat waaw loo kay dal borom ndam kooku jàmbaar la jàmbaar la waaw muy sëriñ bu yàlla baaxal di ñaankatu yàlla boo xam te nii boo demee këram ca mbuur muy rabat ci lépp daf koy faj mhm. jërë ngeen jëf di nuyu Baba mi nga xam ne moo nekkoon ci cadrage bi di nuyu tamit place bi bu ñu ko waxee muy guy Pro di nuyu guy Pro di nuyu tamit ki nga xam ne moom lañ fi teg muy Mor Ndiaye sama doomu baay ah. <laughs> Ah, moom moo mi ngi mi ngi liggéey liggéey bu am solo am solo am solo di nuyu ñëpp di nuyu Thierno Diop moom it sama xarit la. waaw ah, Diop moom waaw ndax yow sa xarit sama xarit. la mooy li ma wax chaque man moom a ma xarit bu bees quoi vraiment man moom aw ma. waaw sa xaritu démb laa gis. waaw ah, man moom aw ma moom mission yi ñu boole rek ku ne dem ndax jàpp naa ne man su ma xëyoon nii xewee xewee tay tamit mm. noonu lay demee. ak Thierno Diop ay <laughs> <laughs> bokk Touba de Ndaamaatu. <laughs> jërë ngeen ah. jëf jërë ngeen jëf